jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax di leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp jàmm di ko ñaanal ki nga xamante ni moom leen seet si mu Père Bourkhane euh, di leen wax na nag euh, semaine bi am na làmb yoo xamante ni jotoon na fi am mu nekk ay làmb yoo xamante ni làmb yu neex la dox ci diggante Ardo ak Thiatou Fora ko gis nañ ni xale yu bëree xale yi wane nañ jom wane nañ jàmbaar ba ki ji am am ndam waaye bu ma ci loolu may taxaw ci combat bi nga xamante ni mooy diggante Dame Sène ak Ndandi Fall nekk na ñaari xale yoo xamante ne nii dëkk ay ay ay mbëgu gox lañu ndax daam seen kooko xam ku nekk xam ne ne su ñëwee waa Parcelles jóg dara ko kii di Ndandi Fall su jógee waa Grand Yoff jóg ah, waa Parcelles jóg ñëpp jóg mais keroog dafa bëre ba na nga xamante ni noonu la woon bëre wane na ful la fayda jom mais dafa tase xale bi nga xamante dafa décider keroog muy daam seen daam seen wan ko imposer ko force daan ko waaye nag di ko wax ne Ndandi Fall nga dem liggéey waat xale la kii di euh, daam seen moom tamit xale la làmb nga ci kanamam di ko wax euh, di courage di ko félicité bu baax a baax suñ ñëwee keroog ci dimance bi muy démb ci diggante Sokh ak Gamou Gueye démb làmb ji neex na am na ambiance xale yi bëri nañ di ci encourage ki nga xamante ni mooy Maama bu fas di félicité ki nga xamante ni mooy Paul bu Daaru ay xale la yoo xamante ne nañ waaye su ma ñëwee ci benn comba bu ndaw mooy diggante Diène kii kon Mbagnick Kaïré ak Jacob Baldé mbokk yi combat boobu nekkoon na combat woon di combat bu neex la daanaka ñu ñëwoon ci stade bi yëpp combat boobu intéressé woon na leen et doon nañ ko bàyyi xel mais làmb ji dafa jeexee ci ay avertissement xanaa di ñaanaat ñi nga xamante ni ñooy promoteurs yi wala boo amateurs yi làmb jooju kenn doyalu ci démb maa ngi koy wax maa ngi nee naan lii daf may daf may fàttali xaw ma kañ lay am waaye ci diggante Ama Baldé ak Diène Kairé jooju làmb ju neex lay nekk mais ñaar xale yi démb dañoo xeex dañoo bëre que boo xoolee la la la public ba yuuxu ci stade ba ak la ñu kontaan. Euh, gisuñu ko sax ci yeneen combat yi fi jot am di leen ñaanal promoteur bu ñu ko mën bu ñu ko mënee andilaatal te gaatal ñu ko dinañu neex lool lool lool lool su ma jógee foofu damay ñëw ci sox ak Gamou Gueye Gamou Gueye def na li ma def yëpp Sokh na def na li ma def yëpp waaye làmb nag soo dugg si ñett ngay andi défaite match nul wala victoire Gamou Gueye nag yàlla dogal na ne ñàkk na di ko wax na ne ànd ak ay mbokkam dellu liggéeyaat Sokh làmb ubbeeku na ci sa kanam di courage fi mu toll nii nag ah bu la neexee mën ngaa tàllal say loxo man nag mën naa la limal waaye du ko lim ndax am na ñoo xam te jege nañ la maa ngi nuyu Kalso doomu nday Sokh maa ngi ko nuyu bu baax a baax ma bàyyi Père Bourkhane mu nuyoo ndax démb sax ñoom dañoo def face to face waaye face to face ba dafa xaw kii ma bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan bi Père Bourkhane nuyu naa la. Ousseyn fay naa la. auzu bi kalimaati laahi taamaati min sharri maa xalaqa ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu internetu wasaare yëpp di leen wax ni sunu waxtaan wi yàlla na fekk ñëpp ci jàmm di wax ni aussi euh, làmb daal tànku kanam la am amul tànku ginnaaw te ñëpp gis nañu ni mission CNG bi passé doxal nañ li ñu a doxal mais CNG bi di doog ñëw aussi ñu ngi ci benn yoon boo xam ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax réussite euh, drapeau chef de l'état bi nga xam ne ci lañ jóge organisation baax la ca ànd yëpp vraiment ñu ngi santaat yàlla bu baax di ñaanal làmb mu jëm ci kanam. dama boo ñëw fax foofu waaye fi nga fi nga fi nga fi nga jeexalee dafa am solo naka nga gisee drapeau chef de l'état bi ak xale yi jàmbaar gi ñu ci wane naka nga ko gisee. mais kontaan ci bu baax a baax a baax parce que damay dégg sax ñoo xam ne dañuy wax ne voilà dañu bëgg région bu nekk. am ay mbërëm mercenaires yi dañ ko war a bàyyi ñun Sénégal la ñu nekk ndegam CEDEAO mooy am mercenaire sàkkantumaak biir Sénégal gi nga xam ne fi la ñu nekk ku ne gis na fi euh, ku ñuy wax daam moo représenté woon Gambie euh, ba dem fa final te pourtant Sénégalais am na licence su senegal loolu ñun Afrique dañoo war a xam ne ñun benn lañu te it defar suñu sport suñu sport moo waral lu mel noonu yëpp di am xale bi nga xam ni bindu na munul am munul bindu Dakar dem Kédougou représenté leen loolu wàññiwul dara en tout cas euh, chapeau à au CNG li ñu def réussir na yàgg nañu fekk ay drapeau chef de l'État mais bu mel ni bi nga xam ne organiser nañ ko à Kaolack képp ku yàgg dem chef drapeau chef de l'État xam nga ne bu mel noonu musul kon na nit ñu delloo soit seen xel ñu xam ne ñun suñu yëf la tey jii xale bu nekk Dakar dem Kédougou ci biir Sénégal rek la nekk su fekkee ne tax na suñu compétition bu baax dañuy euh, gërëm CRG yi gërëm le CNG gërëm tamit sénégalais yi nga xam ni de loin ou de près approché nañu CNG ba réussite bi am ci ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a yokk foofu tuuti rek ndax maa ngi dégg léegi ngay wax ku mënul représenter Dakar dem Thiès wala mu dem luga ndax mbër yi nekk daka père dañoo bari te cinq lañ ciy jël xaw ma six. n'est-ce pas léegi bu fekkee dañoo jël cinq te moom bëgg na compétir mën na dem Thiès. wala mu dem Louga wala mu dem Tamba loolu dafay gën a yaatal affaire ndax xale yi dañoo. Ah. bariwul ay lutteurs. tey Kédougou bëgg nañu sport mais encadré wuñ leen woon ci loolu mais tey ji bu compétition bu mel noonu nga xamee ni euh, euh, région yëpp. dañu war a compétir ñoom tamit ñu fexe ba def seen participation yaakaar naa ne loolu c'est à tey jii da ngay gis ay joueurs yu nekk Mali yu ñëw Sénégal di fi di fi football ay basketteurs yu nekk euh, Sénégal dem beneen dëkk di fa di fa di fa di kon loolu daal dañ ko war a dañ ko war a rafetlu mais te it Sénégal dina yegg foo xam ni xëy na dëkk bu nekk dana mën a am ñoo xam ne ñoo koy représenté mais pour le moment yeggaguñu fa. pour le moment yegguñ foofu bu ma jugee ci loolu damay ñëw ci Père Bourkhane Père lan moo la dugal ci làmb ba nga nekk manager parce que ñu bàyyi suñu la xamee grace à Boy Niang moo tax ñu xam la lan moom la dugal ci làmb est-ce que Boy Niang doo nga yor comme wala avant Boy Niang am na ñoo yor wala ak Boy Niang am na yeneen mbër yoo xamante ni yor leen di nekk seen manager. waaw xam nga ñu bari aussi dañuy def erreur boobu dañuy wax ne man Boy Niang moo tax ñu ma mais fi ma jaar ak Boy Niang moo waral. ak fi làmb te ji nit ñi gën maa waaye man euh, pikin fi laa màggee maa ngi juddoo Dakar Daaru màggee diggante Grand Dakar ak pikin Pikine laa duggee école Pikine fi laa jàngee métier Pikine fi laa defee service militaire Pikine fi laa soxna fi laa sama taw après nag yàlla dimbali ma ma am kër ñibbisi fii buun bi ma libéré avant may libéré armée la don ànd ak Pape mbër booba ñoom Mansour ñi ay xale lañu ñoom Ba may ànd ak ñoom bi ma libere armée ñëw jour bi ma libere après avoir effectué six ans et demi de service may ñëw di jógee eh, gaaru caaro yi di ñibbisi ñëw ba ci ginnaaw cinéma awa maamoon benn mbappat bu rëy bu fa nekkoon il y avait les Sadio ñoom Mbita njaay ak eh, ñoom Pape Gueye ñu ñëw di fréquenté mbappat moom mu ñëw fekk fa Mansour Diop mu nekk xale daanaka Benjamin la mais ku bëggoon làmb la amoon nag gabari bu baax d'ailleurs sax looloo ko permettre mu teel dugg si làmb mu ñëw seetaan ko ba yëf yi tas ñu àndandoo jamono boobu maam góor gi mi ngi tëgg benn mbappat bu mag boo xam ni drapeau Val d'Afrique la woon la doon teg waaw mais coupe la doon nekk alors ma ànd ak Mansour Diop ba yàlla def mu jël ko ma continuer virus bi commencé ma dugg ma commencé bëre bëri naa trois combats arène. yow mii nii bëri naa trois quatre combats arène mais samay parents bëgguñu woon bëre parce que xam nga bëre bu njëkk ba. nit ñi dañ doon marginaliser sax les lutteurs. Mm-hmm. famille bi ñu bokk mbër mucc am nanga ma nanga ak nangam wax yu baraal mm-hmm. sama yaay jógee kawlax ñëw lu ma daal tey boo bëggee lu ma neex da ngay génn ci lii ma bàyyi ko mm-hmm. bi ma ko bàyyee aussi bàyyiwu ma ko euh, noonu mais dama bàyyi bëri ji mais di encadrer ñoom Mansour Diop ñoom Balla Gaye numéro un su su nekkee mbër tey c'est grâce à moi yàlla def na nag mu amaat encore yeneen relation yu gën a kawe xamante ñoom Balla Gaye un xamante ñu mel noonu mais tey su bëggee làmb ak fañ ko commencé ci biir daaru la ci benn kër goo xam ne dama ko doon boole ak benn xale boo xam c'était un euh, militaire après muy tudd Demba Fall yàlla ko yàlla xare àjjana ñu nekk boobu temps moom sax mënul daan Demba Fall mais ñuy dem ba muy daan dem Demba Fall affaire bi moom tamit boobu temps Bruce Lee la bëggoon moom. moom lépp lu Bruce Lee def Balla Gaye bëggoon na fexe ba mun ko. muy ay may géereeg yu ko yooyu nga xam ne da moom la doon xeexee alors yu yu mel noonu daal soo ko gisoon da ngay jàpp ne rek moom sax formation Bruce li la mais bi ko virusu làmb bi commencé dugg ñi ko doon daan mënatuñ ko daan. mu commencé nag xam nga euh, euh, jaan bu bu màggee ci dex géej la jëm alors mu dem commencé di dem géej di fa fekk gars yi di leen daan ñu koy daan boobu ñoom tey seen sax jógaguñu ndax ay xale la ñoon jamono yu ak ñoom Balla Gaye 2 mais daan nañ dem di assister ji rek mm-hmm. moom nag mu nekkoon koo xam ne il est ba pare Euh, xam nga koo xam ne da nga jóge ci plage bi dem ba bërigo bu fekkee ne xam ngeen côté géej gi géeju caare bi boobu c'était pas à la portée de tout le monde boobu boo nekkul un vrai sportif mënuloo ko te da ko daan def aller retour alors am na condition c'était un faux maigre aussi koo xam ne réyul woon mais gars yëpp ñu ko doole te yàlla may na ko yàq ku musa mës ci sa loxo di nga xam ne carrément kii yàlla may na ko doole ba pare moom force de frappe am na ñu bari dale na kawte avant que mu leen di daan voilà alors ma formé ñoom Balla Bey ñoom euh, Mbacke Ba mm, ginnaaw gi la ñoom Paala ñëw ñoom Assane Balde ñoom Galas xale yooyu nekk naa seen secretaire général euh, par intérim ba mu jeex ma yor ñaari mandat yoo xam ni maa nekk euh, secrétaire général lu Njaga Caam bi décédé yàlla na ko yàlla xaraajana alors ànd ak xale yi ñu def ñu def nag euh, yoroon école boo xam ne école bu mucc ayib la parce que école boo xam ni euh, fa la ñu formé commando il n'était pas lutteur fa la ñu formé cek il n'était pas lutteur ñu formé fa ndàgg mooy tonnerre maçon la woon ñu formé fa Boy Sey mu doon def marchand ambulant mais bi ñuy jël Boy euh, Boy Sey fekkoon na Boy Sey bëgg mbapat parce que Caaroy kan Caaroy nekkoon place boo xam ni commerçant yi dañ fa doon ay làmb yu am solo yoo xam ni xale yu bari fa la ñu génnee ah en tout cas sama dal daal grosso modo mun naa wax ni ba ni ma ñu ñu ñoom Balla bi de ñoom Ndiaga Diop Pape Cissé alors ñun ñëpp ñun ñoo leen encadré ba yàlla def ñu nekk li ñu doon en tout cas c'est un grenier boo xam ni li mu produire ci ay euh, ci ay xale bare na. gis ngeen ni ngeen ko déggee ñu bari yaakaar nañu ne euh, Père Bourkhane euh, Boy Niang moo ko booleek làmb waaye su ngeen déggee li mu wax xam na yàgg na ci làmb et yàgg na bëgg làmb yàgg na yóbbu ay mbër waaye su ma ñëwee sa diggante yow ak Boy Niang sa diggante ak Boy naka la tàmbalee ba fi ngeen yegg nii tey. man sama digganteeg Boy Niang du hasard parce que man euh, dama àndoon ak Balla bi ma am ci lu kenn amul. nee naa la Balla Beye tey su nekkee li mu doon am naa ci part de responsabilité bu mag a mag a mag ci maanaam ci cadre réussite ci làmbam waaw ndax maa ko bëggloo làmb amoon na lu ma ci mënoon loo xam ne su amee problème nit ñi dañuy am dem ne bur xan xanaa yëgoo lii te su ma ñëwee mu réglé mu joxoon ma nag cër bu mag a mag a mag mag mais li ma luppe ci Balla Beye yëpp am naa ko si Boy mais bala ni ma mel booy Boy nii noonu laa meloon ak moom il suffit ma xool ko nii rek si ay bët mën nañu waxtaan. loolu moo may tamit chance boobu laa maat ci booy Niang Boy Niang ci plateau wala booy Niang ci biir làmb du soxla sax may nekk di wax ak moom ay wax yu bari il suffit que ñu xoolante rek xam na lu ma nangu ak lu may bañ. waaw su fekkee ne bëgguma mu wax lii su ma ko xoolee dina xam ne bëgguma mu wax loolu su fekkee ne bëgg naa mu wax loolu su ma ko xoolee dina xam ne bëgg naa mu wax loolu alors complicité boobu nag moo nekk ci ñun yàlla defal ma ci aussi loo xam ne xam nga nga ànd nit di ko tàggat comme dégal mi moo la ak ñoom Mansour Diop naa la ni ñoom ñooñu maa leen doon tàggat alors léegi nag euh, euh, dégal ma ko moom ñoom Mansour Diop ba tey jii dégal bàyyi am doomam ma ñëw yoraat doom jooju loolu sant yàlla magu ma ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax et yàlla aussi defal ñu ci loo xam ni Boy Niang man du sama du sama du ma du ma manager simple man man papaam laa papaam laa te lépp lu ma am comme potentiel dama ko si yàgg a def man bu njëkk ba bi doog a ñëw amoon na ay entraîneur mais entraîneur yi fi nekkoon il fallait ñu jox leen expérience muy Baba Wade ak Cheikh Ndiaye mi tey ji alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamante ne c'est des jeunes yoo xam ne ils sont dociles ñu nangul ñu ñu tette leen ba diplôme entraîneur yi xew ñu dem defi stage am seen diplôme mais ñun bi ñuy ànd boobu temps loolu amul mais xam nga kii la jiitu ci néeg moo lay wax fi ngay toog ñoom tamit ñu nangul ñu ñu ànd ak ñoom mais boo gisee sax man léegi léegi saal bu ngeen fa demee du ngeen ma fa mais bu njëkk ba amul ba heure booy ñëw entraînement te doo parce que il fallait moo am ñoo xam ne dañ leen di encadrer teg leen fi mais bi ñu demee ba nga xam ne ñoom xam nañ seen yëf ñun duñ dem di fa buuxanteeg ñoom dañ leen di xool su fekkee am na lu ñu rectifier ñu leen nangam ak nangam soo gisee même ci ay combat mën naa ñëw wax ak Boy directement mais souvent damay woo Cheikh Ndiaye ne ko waxal sa waa ji mu def nangam ak nangam ak nangam ak nangam parce que nag cumul de fonction yi day yàq yu bari il faut kenn ku nekk ñu jox ay responsabilité mu koy def ba mun ci mën a gis boppam. parce que loo gis xëy na euh, théorie baax na mais pratique moo koy accompagner alors euh, Boy Niang am na sax combat yoo xam ne man maa toog ci chaise ba chaise entraîneur su ngeen xoolee seen archive di ngeen ko gis alors mu nekk koo xam ni dama daan yàlla daf ma doon dimbale ma ànd ak euh, Ndeye Ndiaye Tézen ñu ànd ak Boy Niang ma ñu àndaat ak Kandji production ñu ànd ak Boy Niang ma ànd ak Assane Ndiaye Assane Ndiaye nag il faut ñu taxaw fa tuuti parce que bokk na ci ñi nga xam ne sunu carrière moom daanaka moom lañ ci àndal ba dégg daal euh, dañu doon dem ci stade bu mag bi dañ koy feesal ba du am place te boobu Boy Niang cheragul sax ñu dem bëre ji lig Nicolas Demba Diop yàlla dogal ñu daanu ci ama neex ma seetiwaat Aziz eh, Assane waxata waxtaanaat ak moom mu ne ma ah non da ngeen ma bàyyi woon na ma ne ko non bàyyi wuñ la de toute façon euh, marchandise la boo xam ne ñun dañ koy utiliser kenn ku si nekk di si war a gis sa bopp gagnant mm-hmm. te yow kii soo ko bëreloo xam nga lim lay lim lay indil mu jox ñu dolf drapeau ay de mboj ñu def fa victoire avec gloire kooku kenn soo su ma su ma ñëwee ci Dolfo euh, foofu da ngeen tegoon seen palier escalier yi ngeen war a jaar waaw wala déet parce que su ma juumul da ngeen jël Dolfo daan ko jóge ci Dolfo dem jëli teg leen man daal jàpp naa ñett ba bi ngeen jël sos déggoon naa foofu dangeen ngeen fay jaar. waaw xam nga euh, bi ñuy bi ñuy bëreeg Dolfo boobu il fallait ñu wane ne ñun ama neex mënuñu. mais boobu bi ngeen di jël Dolfo yéen a ngi préparé parcelle. que production. waaw booba dañoo jógee ama neex de koo daan Abdou Kandji ne euh, vraiment mënatul seetaan booy Niang parce que sa booy Niang a besoin de soutien il faut mu yóbbu ko sama kër R plus 3 la mu jël deux jox ko moom kenn ak ñu war a àndal yore seen lépp abdu Kandji mention spéciale te euh, nit la koo xam ni moom musul seetaan booy Niang pour dire. Eh, da daan supporter Fass jour bi ma ko jëkkee wax ne ko ne damaa bëgg nga jàppale boo ñaar dafa nu ci man affaire làmb moom dama cee bàyyi dama ko bàyyi parce que waa fas moom ci laa nekkoon mais daal vraiment làmb moom bàyyi naa ko mais rakkam bu ñuy wax Moustapha Kandji da nga koy dégg souvent ci euh, stafu Boy Niang mu nekk xale bu bëgg Boy Niang xale bu ko bëgg te yàlla rek tax koo xam ni bi ma koy indi foofu moom Euh, kër gi ni mu nekkee étage su ma woowee téléphone damay wàcc ci suuf fekk ko mu taxaw ma jël jël téléphone bi woo Boy Niang jox ko mais loolu rek da ko doon doy lu fait mu déggoog booy Niang ba ni mu commencé ñu commencé ko miin mu dugg li mu ko njëkk dimbalee cinquante mille ak cinquante t-shirt alors magam nag gis ni rakam mel ci booy Niang mu jóge ci defet boobu ñoom ñaar ñu jooy ko jooy yu metti euh, mu jël ko yóbbu ko parcelle doo fay lekk doo fay courant doo fay ndox jënd ordinateur comme c'était un élève lépp di ko encadrer correctement ah ci diggante bi nag ñu jël dolf daan ko fekk daan nañu Pape Sène alors euh, dem bëri ak saa Kajoor boobu nag la ñuy dugg ci Aziz Ndiaye. Mm-hmm. Aziz bi ñu njëkk a gisante ñu ngi gisante place su Pape Diagne Seras mu ngi ànd ak papaam góor gi aale. Mm-hmm. ñu ñëwee mu ne ma léegi yéen kan ngeen bëgg ma ne ko saa Kajoor wala les deux ma ne ma bul sacrifier doomu jàmbur. seetal ñu mu tol tollool nga jox ko ko ma ne ko mbër ku mu ñemee rek mën nañ koo booleeg moom loolu nag li ñu ko mayoon parce que gisoon na ne booy ñang euh, dafa doon entraîné ak ñu ko ëpp doole fuuf muy ñoom Cheikh ñoom Boy Sey ñoom Malal Tonnerre ñooñu ba pare mu nekk Benjamin ci biir groupe bi euh, ma ne ko ñun mbër ku mu ñeme rek mun nañ ko booleeg moom mu ne ma loolu moom du man du ma def mu ñibbi sept mois après mu ne ma yow yaa ngi ci Sakajor ba léegi ma ne ko Sakajor wala les de Koundiam baax na ñu taxawal Sakadior je me rappelle très bien ma ñëw fekk ko stade ba le matin xam nga le matin le organisateur bi di ñëw di defaraat emplacement yeeg yooyu ma fay jël si ay blouson mu ne ma tey daal li ma leen di wax mooy tuusal leen ma tuus mu neex tuusu ngéwél te xam ni yéen lii rek ngeen am ci làmb ji <laughs> mais loolu dopage la mm-hmm. man keroog bi may ñibbi xawma lu ma yoon wi ma jaar ndax d'abord nee nañ ma da nga sacrifier doomu jàmbur ba pare wax ma ne ma dem di yéen daal tuus mu neex rek la ñu bëgg ci yéen bi ma ñëwee jamono boobu nag dama am ulcère bu metti te combat booy ñaa dama si daan daanu en général ay feebar ba nit ñi di wax nit kii est-ce que dina dundaat mais du tere danaa remplir contrat bi ba pare naa dellu soit malgré bu ni ñi di manifester wu sax man du ma du ma mun a waaw alors ma ñëw boobu nag ñooy bokk lekk parce que du n'importe quoi laay mën a lekk ak ulcère bi te moom aussi dañ ko dañ doon éviter pour muy lekk ay ceeb ak ay yu mel noonu ñu daan jël ak en général yàpp togg ko ak ndox noonu mu lekk ko di éviter aussi mu naan lu bari parce que sooy naan lu bari da ngay soxla sa bopp ak yu mel noonu yooyu yëpp dañ ko doon dañ ko doon kon kii quoi alors ñëw waxaale ko ci añ bi mënuma eh daal ñooñu dañuy kii rek bàyyi leen noonu rek bàyyi leen foofu man ko non waxuma bàyyi leen foofu làmb ji lamb ji ñu war a la et am na nooy bëree wax ko li nga xam ne loolu laa xalaat ne loolu lañu war a def mënuma sax loolu laay def yàlla dogal gis nga bi mu daanee saakajoor ba ma ñëwee ci Aziz Aziz dama ne ma waaye kooku ma xam ko nijaayam di génne ay jinne ma ne ko làmb ji du làmb jinne sportivement la ñu ñëw bëre gañe ko mais moom boobu tam tam dafa doon sayte rek même du ma wax ne nijaayam day génne ay jinne parce que surtout Cheikh Yérim Dumbaan yaa nga dégg alaaj Sàmm Lukumaan mooy sa maam moo jur yaayam ak kéemtaan yi nga xam ne alaaj Sàmm Lukumaan def na ko ci biir Thiès loolu bu amee set il faut mu am nu mu mel yaayam dama ne normalement shérif lañ ko war a wooye ndax euh, maamam xutbu rabbaani la kooku il faut mu mu def ay mujjisaat foofu li ma manqué woon ci ci Balla Gaye numéro un dama ko amaat ci waaw ci Boy Niang mu les deux ñu bëreeg moom ndeysaan dem si àll si Balla Gaye moom ma daan indaale ak Pape Diouf ci seen oto Euh, Balla ni ma Burkhane ndaanaan nga borom xam-xam nga ci làmb mais da ngaa jum ci choix wara woon jël lees de ndax lees euh, booy ñang mënu koo daan. te waaw te ñoo may yóbbaale seen oto. ah bi mu demee ba combat bi di jub si nag léegi mënatumaa dugg ci oto ba. mënatuma cee dugg parce que déjà combat bi si na te làmb dafa fiir. ah te it façon yi ñu wax di ma woon ne yow dañ lay gañe kooku tamit même bu ñu la doon may or ak jamaa sax dootoo ko bëgg. moo moo toog euh, jour combat ba ndeysaan man ak moom ci diggu géew bi hmm. ñu ngi jaabante rek waaw bi Boy Niang daane. lees amoon na complexe amoon na complexe bu doxoon sama diggante man ak moom pour ñu fixente ni maanaam dama ko daw ba ba yóbbu sama mbër. bi ñu toogaat nañu lu war a mat ay vingt jours avant ñuy gisante waat ndax moom tamit euh, suma moroom la yàlla dogal mu nekkoon sama xarit euh, ñu daan entraîné no ONU ONU papa Sadio Ndiaye bii simb moom moo créé woon salle boobu ñoom mbéy gi ak bi ñu tuddee Sadio ñoom grand Moustapha Ndiaye ñoom suus mbay ñooñu ñoo doon fréquenté foofu nekkoon nag ay grand grand wu mbéy gi nekk grand wu Pape Diop ak Aliou Ndiaye médaille door mais ngeen jóge foofu dem jëli Baye Mandione. waaw daan Baye Mandione jóge fa dëkk Zos. dëkk ko Baye Mandione la. sos Zos la d'abord. parce que ñun bi ñu jógee ci les deux rek aussitôt Zos la ñu bëreel. boobu Malick ak moo nekkoon ministre sport nekkoon primature signature contrat fa lañ ko defee woon ba ñu jëlee fa defet defet bu bu soof nag wax dëgg yàlla. daanu ngeen rek. da ngeen doon daan ay nit ñoo ngeen daanu ngeen defet moom mënut a soof defet moom defet da mais day soof si ñun neex ci. Euh, yéen a ñëw dëkk Zos. ngeen ñëw Zos nangu leen a bëre nangu leen xeex Zos taxaw jàpp ndiggam nangu leen ko attaqué. boo ñaa moom dafa ñëw ragal Zos ka dafa am yu ci am yu ci am mooy euh, dafa am loo xam ni euh, fuite dafa am ci sunu stratégie. ngeen ñëw Zos fàttali lépp. waa no fuite moo am xam nga tey ñu toog ñu ne bu ñu demee nii la war a doxalee. Mhm. loolu lan moo ci war a jotale zot zos. ah est-ce que zos ñoo xamante ni nii. <laughs> laay waxee ak yow moo tax man la fuite dafa am li waral zos jot ci day wax ne booy ñaa bu mu dëkk njëkk a dóor zos xam nga su dépendroon ci man kese loolu lu am parce que ñun mënuñoo jël Boy ñaa yóbbu ko France yore ko fii. Euh, Antoine mari Mbengue yore ko fii box yaa ngi dégg alors ba pare ñuy ñëw di ñuy wax naan bu leen njëkk a dóor ñuy ñuy gëm loolu ñu jëlee ci defet ñu nangu ko nag parce que nit bu juumee ci ci stratégie wala ci préparation beneen yoon day ñaan yàlla mu bañ ko dal alors bi loolu amee aussi jos gañe ñu ñu jël euh, baay ma Mandione boobu prince moo ko tëgg Baye Mandione ku ne xam na ni mu mel parce que nii duñu fàtte xanaa digganteem ak Gris Bordeaux. digganteem ak foofu laay jëm si diggante ak Gris parce que dañoo përëm ba jëkk bëre première édition ñu xeex ba nit ñi ñëpp doyal ñu tëggaat booba Gris moo gën a préparé ci école bu mag la nekk njoon fi mu nekk daanaka mooy commandé boppam. loolu en général ay défaut la ci ci athlète athlète da nga war am ku lay ku lay mais jom fulla ci combat kenn ëpp ko njoon xol bu baax kenn ëpp ko njoon parce que ma Mandione mooy mbër mi nga xam ni chaque saison même bu doon daanu mille fois dana bëre toujours loolu nag xol moo koy joxe waaw xol bu baax xam nga nit lépp lu la dal xoolal sa xol bu dee lu baax la xoolal sa xol bu dee lu bon la xoolal sa xol njoon bokk na ci mbër yi nga xam ne ñoo gën a baax ci réew mi alors ku xool njoon loolu mu def tey jii mu bëreeg Boy Niang ak la mu fa jëbëree yëpp Boy Niang daan ko war nañu bàyyi xel ci Boy Niang njoon bu ci bokk na ci mbër yi dàq bëri laa la wax moom li li nga koy rawee mooy am encadrement am saf yooyu peut-être mën nga ko cee dominer mais jom moo tax paa yéri ndem si yàlla si ndeysaan da gërëm baay ma ñoom ndax moom jàppoon na ni bàyyi ma ñoon mooy nekk le roi des arènes ndax li mu ko daan defal ak teraanga yi mu ko doon defal bàyyi ma ñoon tailleur yi moo ma wax ni ma bàyyi ma ñoon di tax ma naw ko dama ñëw di ko indil pourcentage am di jël dama ñëw di ko indil cachet di jël sama pourcentage kenn du wax benn jour foog naa muy indi fa cinq million war ci jël cinq cent mille alors bu mu ko jëlee rek am ci jotaay ba ku ko wax ne xoola ma lii rek lii àq la ñu jur suñu doom mënuñu am ci moom lii ah nga war a jël xaalis bi nii góor gi nee na moom mu ñàkk tooy xepp ci biir saal bi xamul lu muy wax ñoon ne xanaa yéen tey ngeen mën a wax kii xaalisam sax da ko doon yëkkat di ma ko jox pourcentage bu nekk ba muy nekk lu tuuti la koy jël tey jii mu war a jël pour pourcentage ne ko père la ñaata nga fi am mu ne temps nu ko jëlal daal di yëkkatiwaat xaalis na ko paaseel ci lii moo tax paa yéeri da koy gërëm ba dee fa pour dellu siwaat ñu ñëw jëli baay ma njoon daan bàyyi ma njoon loo gisee passage boobu yëpp ma jaare la ko fa rek pour wax statut bàyyi ma njoon ku xool bàyyi ma njoon ak Modou Lo kon loolu kenn dootu ko fàtte alors ma Mandione nekk nit ki nga xam ni wax dëgg yàlla ku yàlla baaxal la. mais bi ngeen jógee ci Baye Mandione. bi jógee ci Baye Mandione bi jógee ci Baye Mandione Euh, euh, kii euh, rak zos bi. Garga lañ ci teg guddi yooyu Garga Mbossé neexul woon a bëreel. Hmm. Garga Mbossé daan fëgg la jóge fa daan tonnerre. daan ñu bari sax teer hmm. ci parce que dafa tegle woon ay victoire. mu muy bëreeg Boy ñëpp dañ ne woon ne day daan Boy Niang. ñoo du esaat ba fees del. voilà animé ko tamit teg ci jour boobu décision dëgg la jël mais yàlla dimbali ñu. ah xam nga dama wax ni rek. lamb seen a mais nag yéen seen i combat dafa yomb. parce que da ngay ñëw bañ na tey kii boo Niang da koy rey mais buñ duggee ci digg géew bi dafa mel ni dafa am yeneen yu ñuy jànkonteel avant ñu jàppante. man dama moom laa lay wax rek mën a bëri du tax nga daan ci combat stratégie mooy tax nga daan ñun nag dañuy utiliser stratégie bu baax. Sa Thiès non mystique su doon mystique kon da ngay taxaw rek di léewtoo waa ji daanu mystique su doon mystique la rek. jarul ngay jëm di pàdd wala ngay jàpp di accroché wala ngay def dara da ngay xool waa ji ba mu tëdd mosoo ko gis ci làmb. ah am na ñu fi jàkkaarloo mbër ndaw. yaawu jaal mii kan moo ko mystique. non yaawu jaal moom pe amul mystique. oh oh yaawu jaal amul mystique mu to muy taxaw toog ak président de la république ñaata mbër ñoo fi nekk am ay ciitaam mosuñoo toog ak président. loolu est la président da koo xool mu neexoon. déedéet déedéet yaawu jaal bu romboon fii léegi. nit ñi seen état la ñuy sëpp ñuy génn yaawu jaal la ngi ñëw. dëgg la dëgg. yaawu jaal mooy mbër mi nga xam ne président may na ko kër HLM Fass. yaawu jaal mooy mbër bi nga xam ni ministre yeeg député yi fu mu ci ñëw taxaw da ngay yàkkamti mu ñëw ci yow mystique la bu wóor ku mu gis bëgg ko du mystique xam nga lu ci nekk làmb mën a bëree du tax nga daan da ngay gën a baax stratégie sànq dama doon wax yow ci Sa Thiès. Mm. Sa un lutteur. boo xamante ni damaa bëgg ñu ñëw ci boo Niang comme que daan ngeen Garga Mbossé ba noppi ndax ngeen ko daan ngeen ko ngeen jóge fa jël ki nga xamante ni mooy guy gi daan guy gi. jóge fa jël Sa bi ngeen dëkk Sa Thiès Balla Gaye njëkk a laaj. Balla ne jël leen Sa ba noppi. su ngeen ko daanee ñu doo ko xool lu ñu def mm. ngeen jël Sa Thiès boobu moom da ngeen décider da ngeen ñëw taxaw dëggal seen bu amul dem ma dem te ñëw da ngeen taxaw samp jaaga xeex ak xeex ak duma ko daan ko. stratégie laa wax ni la mooy daan waaye du mën a mën a bëre Sa ku ne xam na ne mën na bëre ku ne xam na ne am na vivacité ñoom Babacar ak Lamine bañ ma woowee saat di mu wax rapidité Sa Thiès man leen bosam ngeen gis waaye gisu leen bu Boy Niang danaa la wax tey jii lenn loo xam ne ñu bari xamuñu ko. mbër bu fekkee ne xamul distance bi muy bëree ak adversaire xamul ban sance lay déplacé mënul bëree. mbër su xamul. distance bi muy bëree ak adversaire am. ban sens lay lay déplacé. mënul bëree. Euh, loolu dafa nekk. loolu nit ñi ba tey de des sa xam te it pour nga gagner benn combat il faut nga xam valeur combat bi ñun nag yàlla dogal na ñun ñu ñuy bëreel dañ leen di jox li ñu moom pour mun exploiter li ñu yor ñun mbër mi boo ne kii xamul dara kii bu ma ko jàppee nangam nangam te yow daana ko yaa ngi ci erreur mm-hmm. balaa ngay wax ne waa ji maa ko mën danga koy daan booy Niang mi ngi jàpp ni mi moo mën Sa ci bi mu ko daanee ba pare mais man Diourbel laa jàpp ni kii booy ñaa da koy daan ndaxte gëmul Boy Niang moom moo waaw mu ne ko suñu tëjoo ci néeg suñu ubbee man la ñuy fekk ci kaw. Boy Niang na ko tey jour boobu man xam naa ne ñun su fekkee ne waa ji nii lay def ba làmb ja dañ koy daan mais làmb ja la même chose la fa wone moo tax tamit ñu daan ko jël boo xam ne mu ngi ci analyse. léegi euh, ñu ñëwee ci la dëgg combat boobu moom dafa sax kii nit ñi boobu moom dañ koy boros rek ñu jàll. ngeen la lan moo ci nekk. Ah, kon boog wax jox la capacité booy ñang mm-hmm. Lac de Guiers ñàkk koo faral rek mooy tax ñu waxee ko noonu mais c'est un très grand champion suñu waxee dëgg. daanaan la. waaw nit ñi maa koy dëggal. nit ñi yow bu fekkee ne faraloo nit ki bu la neexee mais moom li muy def mi ngi koy def di gagné. te kenn mënu ko cee daan. voilà que moom mi ngi koy def di gagné mais damay ñëw rek toujours ci côté Boy Niang. Lac de Guiers ñi ñuy wax ndaanaan lañu yëpp daan na leen. Yékini kenn du naatable ak champion gis nga ne mu def ak moom kenn du naatable ak champion gis nga ko ne mu def ak moom Balla numéro 2 kenn du naatable ak champion gis nga ne mu def ak moom. Tapha Tine Sow. Zos Issa Pouye te ñii ma la. loolu rek doy na lañu amul kenn ku ci réussir li boo ñaa réussir 15 minutes yoo xam ni. maa la dominer maa lay toucher maa la yóbbu ardo maa lay song ba quinze minutes yi jeex. mais daanu leen ko de. dañuy ñëw rek parce que foofu laay ñëw toujours man maa wax ni erreur de coaching la bu kenn ñëw nag ma ne heure de coaching nga jàpp Cheikh Ndiaye la wala keneen déedéet benn groupe ñoom ñooy liggéey stratégie boo boo ñaa di def parce que toujours ngeen dégg moo ko ci télé groupe boobu ñoom ñoo wax ne. téyel sa bopp. ñoo ko wax Boy sa bopp parce que lépp yaa ko def waaye dañoo fàtte ni pénalité mën na caa am. Mm-hmm. te pénalité yooyu moo répercuté waat suñu kaw. ba moom mu dem uti lu ëpp. ba ñu joxe verdict kenn match ni lañu la ñu déclaré ca làmb ja. Mm-hmm. recours moo waral ñu ni Lac de Guiers mais fi may doon waxee rek mooy quinze minutes yi. nga xam ne foofu tamit est ce que daanoo leen. non ñu. boo ñëwee tegul fes. moom nag daa amul carte appui. carte appui carte ah man ko. si man gis naa ko site internet yi wane nañ ko dañ ko fixé sax. Hmm. xam nga làmb daal verdict bu ñu ko joxee. l' arbitre est le maître du terrain te CNG moom moom mooy comité de gestion su joxee décision ñun dañ ci ànd ak moom. mais man fi ma bëggoon rek pour nga comprendre mooy li résister li Boy Niang résister Lac de Guiers éliminer ko quinze minutes yoo xam ni jéewul dara te làmb jooju lu fa waay lu ñu fa def Boy Niang ko fa def ba résultat final lu ñu fay def rek dama bëgg nga wax ma ban mbër moo ko résister noonu loolu rek mooy jox boo Niang capacité. man kay dama doon xalaat waaye sama xel mi laa mel ne ñëw na nees. nees nees jàpp na fi la déggee doo ko doo metti. lu ñu mujjee. la déggee ko daal. <laughs> en toute chose il faut considérer la fin. li ñu fi wax yëpp. fin fin ba mooy daan na ko. kenn du ku dóor de. voilà gis nga. mais Euh, waxtaan wi neex na lool waaye xam naa ne bu ñu koy topp ñenn ñi nga xamante ne ñooy seetaan tam tam ñu ne kii dafa faral Boy Niang ndax faral na yàgg nañ koy dégg ci liñ koy wax waaye nit koo gis ku nekk am na ko mu faral man mii boo ubbee sama bi am na ku ci nekk aadama mii boo ubbee ci am na ku ci nekk Père Bou boo ubbee xolam bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo ci biir xolam mais lan moo dugal ci Tapha Tine. xam nga Tapha man agent de presse yi miin nañu sama communication man maa ñeemawul Tapha Tine Boy Niang nag moom bu sañoon bëreeg moom mais man maako ko ñemewul. yow yaa ñemewul Tapha Tine. waaw boobu loolu si sama communication la woon avant. avant lamba ji di taxaw. bu yàgg lu ay année sax saa yu ne booy Niang euh, Tapha rek man leen man maa ko ñemewul. léegi ñeme nga ko wala ñemewoo ko yaa la nga nekk. yow tamit yow tam xam nga loolu changé na dama lay wax sax lu tax mu changé. lan tax mu changé. jamono boobu Balla Gaye li ñu bëgg. kon soo fi ñëwee di xalaat tafaatin kon doo am Balla Gaye bi ñu demee ñuy wax sunu combat ak Balla Gaye sunu combat Balla Gaye ba dese lu dul joxe avance daanaka affaire bi daal di changé Balla gay dem jëli Bombardier boobu loolu rek moo fa taxaw waaye ñun amuñu combat Tapha Tine amul combat suñu promoteur wooyee ni dama leen di boole lan lañuy ñuy xaar. ñu ni ma risque la man leen lu tax ngeen ne risque la. na ñoo wax loolu. ah mais nit ñi. staff bi wala. non pas staff bi mais nit ñi dangay ngay génn si biti ñoo xam dañ lay wax ne li nga jël risque la. Tapha Tine dafay dóoree nangam sangam alors man ma gis ne du risque ku bëreeg Lac de Guiers li mu bëreeg moom ak Lac de li mu def gaa yëpp. mais bi ngay bi ngay bi bi bi bi. waaw àcc ñëwoon. lii Lac de def yëpp. daan tafaatin yow nga def ak moom li nga def ak moom di dëkk Balla Gaye kooku soo nee yow ba bëreeg moom risque la ndax sa bopp la. loolu moo taxoon ci jamono boobu ma ne man man maa ñemewul tafaatin parce que boobu man bëgguma tafaatin Balla Gaye laa bëgg Balla Gaye demee ya ba ba ba am beneen combat man ñu ñoom ñu dem jëli tafaatin mais xool li yàlla di defaat encore. ñu ci remercier nag euh, Gaston ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ne ci wetam ba réussir combat bi nga xam ni sénégalais yi ñoo ko yàgg bëgg tey jii euh, bala Gaye tamit am grandeur pour accepter son jeune frère yaa ngi dégg pour mu ñëw bëreeg moom. loolu dinaa ci ñëw parce que ñu bëri ne da ngeen bëgg xaalis moo tax a dugal ci Balla Gaye mais Tafatine ngeen jël Tafatine seen euh, face to face bi ngeen xamante ne doon ngeen ko defee ci Joal ngeen ñëw Tafatine njëkk leen fa. chaque jour Taphatine sax moo njëkk ndax démb moo njëkk boobu tamit moo njëkk mais saa bi ngay ñëwee coow lu day bari seen diggante yi nekk Taphatine da ngeen ko bëgg a perturber wala da ngeen ko bëgg a wane dama wala boog da ko bëgg a euh, perturber euh, avant muy wax wala boog lan lan moo tax saa boo ñaa boo ñëwee jàkkaarloo Taphatine nag. coow li du boo ñaa moo koy def Taphatine xale bu discipliné la Taphatine non la Taphatine làmb la bëgg. mais dafa am ñu ne ci wetam ñoo xam ni ay perturbateurs lañu ñooñu nag li ma koy conseillé mooy moom Sénégal ko soxla làmb ko soxla am na ñoo xam ne foog nga leen di raisonner wan leen ne leen su ngeen defee ba ñii du ñu bëreeg man fi ngeen ma doon teg dootu leen ma fa teg kon bëgg naa ngeen gën a organiser waat ngeen ñu éviter ñuy animer te éviter ay violence moom moom moom la ñuy xool ci ñoom mais ñu éviter violence bi parce que nekkal ba euh, Tapha Tine rek pour su di ko xeexal wala di ko dugal ci ay xeex du dimbale ko nekk booy Boy aussi di ko dimbali ci di créer ay xeex wala yu mel noonu du dimbale ko li ñu war a def mooy suñu ñëwee na camp yi nekk animé suñu ñëwee seeni i supporters nañu toog dend di waxtaan kenn ku ne di supporter di wax ay potentiel ci sa ci sa mbër valeur bi mu am yaa jëndalante café naan boisson suñu paree di ñibbi en douce kenn ku nekk di glorifier sa mbër waaye boo e, Boy Niang musul ñëw ci benn prestation bu mu war a def ngay koy gis moom ak ay waa këram ñu ñu ñu mais mais père bu ma ñëwee ci Joal bi Boy Niang bi mu dugg see am na morceau bu mu laxasoon ci loxo bi bi mu ñëwee moom la bëggoon laalale Tapha Tine waa kër Tapha Tine loolu du ci daal loolu moo andi coow li. keroog ca ca ca ca Joal Thialis bi mu fa tegee 3 millions yi. keroog loolu moo andi coow foofu mais démb Tapha Tine moo leen fa ji. mbër mën na ko bañ CNG sax terewu ko. ah loolu moom xanaa yooyu <laughs> ñiy seetaan wala boog waa CNG. ñaari mbër yi. yaa ngi dégg li ñuy def ñoom ñaar la concerné su amee pénalité CNG am na représentant moom mooy xool kan moo def lu ñuy tere. mu sanctionné ko mais du par exemple benn nit bu ànd nit mooy ñëw di perturber loolu CNG du ko nangu. mais démb dañoo gis signature ba Boy Niang dong loon fa gis te Tapha moo njëkk a ñëw la moo waral loolu. Boy euh, Tapha Tine li ko fa jiitu ëpp na 30 minutes mais bi mu ñëwee dafa laajte. kenn tardé kenn tardé ci ci ñoom ñaar alors mu ñëwee duggul moom. moom Tapha Tine duggul moo xam ay raison lu tax duggul man nag bi booy Niang waree ñëw nee naa ne nañu woo waa kër Tapha ñu dugg parce que maa ngi éviter télescopage si bunt bi bi ma demee ba xam ne ñoom dugguñu man ci laa ñëw wax booy Niang ne ñëw dugg booy ñaa ma avancé oto bi ba si buntu cosaan mu war a wàcc xeer yi commencé te xanaa boo waa kër boo ñaar du sànni seen bopp moo tax bu ñu wax ni ñële ñoo njëkk a sànni loolu nu muy mën a nekkee. da ngeen ñëw ba ci bunt bi waa kër ni Tine nii déclenché xëy di leen ko sànni. waaw ci bunt bi avant boo ñaar di wàcc oto bi. gaare na boo desul lu wàcc comme bunt baa ngi nii mu gaare nii oto bi maa ngi taxaw man pour mu wàcc xeer yi commencé ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon yëpp daw di dugg si biir kii bi mais ba léegi ñoom ñu nga fa taxaw di arrière ndànk pour mun a génne oto bi foofu ñu toj pare-brise yi toj lunette yi toj lunette arrière yi yëpp ñu toj ko loolu nag euh, ñu ngi koy euh, déplorer vraiment di ko ñaawlu parce que làmb dafa dépassé foofu te làmb aussi dafa fragile ba nga xam ni loo wax violence ak lañ ciy xool euh, Ousin lamb li mu liggéey ci réew mi bari na de mais kenn gisu ci loolu ay violence lañuy gis ay xeer yu ñuy sànni ay pono yu ñuy lakk rek lañu gis mais soo demoon ci les sénégalais de de l'extérieur ñaata la fa làmb liggéey suñu fa nekk Amérique ñu nekk France ñu nekk Espagne Italie Japon yaa ngi dégg tey un monde fou moo fa nekk waaw fii ci dëkk bi ñaata nit ñoo nekkoon ay soit tôlier wala ñu nekk ferrailleur wala ñu nekk ay jaaykatu pneu tey ji làmb daf leen opérateur économique kon nañu éviter di yàq sunu yëf ñu ñoo ko moom te bu jëkk ba nee naa la mbër foowukaay lañ ko defoon ngay ñëw saboté ko daal di ko may sa benn junni dem sa yoon tey jii doomu président sax mi ngi xëccu ànd ak Modou Lo tey am na ñaata ministre ñoo am ay xaritu mbër Boy Niang mii ñaata autorité ñoo ñoo ñoo nekk ay xaritam Tyson port la nekkoon ci bato bateau bi doon dem chaloupe bi doon dem euh, Dakar Gorée mu yor sécurité bi dem na ba directeur port port boobu temps foo à l'époque foog naa ne Pate Ndiaye la woon directeur port nekk xaritam ba mu dépassé dépassé nekk kuy yor sécurité port kon làmb li mu liggéey nañ koy nañ koy wax waaw nañ koy wax sax nit ñi xam ko te éviter di wax yenn violence yeeg yenn yàqu-yàqu yi amul secteur bu amul yàqu-yàqu. du ñaaw sax jaww taw football bii ñuy wax barki dem moo njaay diggante Mbour ak Wakaam bu mel noonu làmb koo fekke am. ñaanuñu ko yàlla sax nag. ñaanuñu ko yàlla mais tey ji pourtant ñu ngi leen comprendre. mais boo ne woon mbër rek ñu ne non non c'est ñoom ay dof la ñu nangam nangam waaye pourtant nag. ah am na ci ñoo xam ne seen situation euh, situation sociale. waaw da nga naan da nga da leen ko nangu sax ne la ay dof lañ yu xam lu ñu bëgg. ah mais barki Demba Ndiaye guy gi man maa ngi fàttaliku ni mu daan tarbiya sëñ Modou def ko papaam def ko léppam parce que amoon na objectif objectif am moo doon nekk nga grand champion su ñëwee sangal ko ay xaram defal ko lépp. nome ko combat yóbbu ko Casamance mu dem bëri jóg ay ñoom Matar Diouf du ma ko fàtte yaa ngi dégg tey jii bokk na ci bu ñuy lim il faut ñu tudd ko. Mm-hmm. mu ngi ay xarit nekk Dubaï Amérique va dafay def aller retour fu ko mu bëgg a dem ci àdduna bu daf fay dem. tey jii su soxla woon audience présidentielle du def quarante huit heures te amu ko dof yooyu ñuy wax ñooy nekk nit ñi. je me rappelle très bien le président des managers euh, bu njëkk ba les anciens lutteurs. dañ daan wax naan manager yi ay sanction lañu dañuy lekk deret nangam nangam alors waaye jour ba ñu toogee ba ñu war leen introduire ci regroupement des managers mu ne leen ah alhamdulilah rabbil alamin ba nga xamante ne deret jun daan naan mujj naa nekk meew moo tax en toute chose il faut considérer la fin ay ji ñoom ñëpp mujj nañoo ñëw dugg si biir regroupement bi eh, di liggéey comme tout le en tout cas daal pour li ma ci bëggoon wax pour nit ñi xam ko rek mooy nañuy génn feeñal li làmb defar te sama sëriñ ba daan wax ni bël leen seeni moroom seeni ayib ndax àdduna medd la te médd xaj ak tan moo ko bëgg boo dul xaj doo tan loo koy doyee kon ñun noonu fexe ba li nga xam ne moom la ñu yàlla jox ñu téye ko parce que ñun yàlla dafa def mission bi nga xam ne sëriñ daara yi moom lañu yor ak les enseignants ñun loolu la ñu am les managers dañuy fekk xale ci benn gox kenn xamu ko nga ñëw di ko puus di ko puus te pourtant bés bu réussir yow la ñuy njëkk a dàq lii ma lay wax nii lu leer naññ la sooy doog ñëw dañ naan xale bi yow daal waaw waaw soo demee ba dugg un million jëm cinq ñun la nag bon commencé laa budu xanaa ñun la am ay mbokk moog yaayam ñoo bokk ndey ak baay booy dafa te dee ko yëgal mm-hmm. yow te yow dem nga ba am cinq millions yëgaloo kenn ñu dem ba ci biir ñun la waaw yow sa njàng sorewul eh, kii mun na contrat yi daal il faut moom moo ko war a vérifier ah mais nañ ci associé ba tey manager bi rek man loolu bañuma ko gis nga yokk dafa a am mm-hmm. mais bul sànni yokk dafa war a am mais bul sànni sànni mooy wor. mais kaw dama gis ngeen jël euh, combat bi di ko dawal di dawal dem ba ci biir beneen avance tugg jot na fee andi sax coow lu xaw a bari tuuti jot na fee andi coow lu xaw a bari tuuti mais lan moo leen poussé ngeen dugg ci tafaatin génnagu leen ci ñi naan di ngeen ci génn du ngeen génn ngeen teg ci Balla Gaye 2 ba mu andi fi coow loo xamante ni kenn comprendre. non coow li incompréhension la woon rek incompréhension la woon ndax xale yi dañ leen di ñaanal yàlla lii nga xam ne moom la Gaston def ñu ñaan yàlla ñeneen am capacité bu tollook mën ko def gas daal yàgg na defaral làmb Gaston tournoi yi moom moo ku fi njëkk a def jour bu muy ñëw di def euh, claf manager yi ak ñoom Jacques Dieng dañ ne loolu c'est pas possible mi mbër wii mbër nga fay leen ku ne vingt millions munul ne ñu ne léegi nag nu ñuy def mooy dañ leen dem ñu ubbi ay compte comme dañ koy demandé suñu ubbee suñuy contre suñu joxe sum xaas ñu dugal ko ci. ñu dem ñoom ñëpp ñu régler seeni contre kayit gu leen Gaston wax rek ñu génnee teg keroog ba ñuy dem kenn ku nekk lañ la jox yéem na la parce que moom mu xalaatoo woon te loolu avance kese la woon. moo tax Gaston c'est une personne boo xam ne ñun ñun dañ ko war a ñaanal. waaye nag alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamante ni euh, moom it il est bien entouré am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak Gaston te bëgguñu feeñ te ñooñu aussi ñu ngi leen di eh, ñaanal au passage parce que ñoom it ba léegi ñu ngi jàppale làmb mais mën nga ma ñëwoon ci Balla ak Boy Niang Balla Gaye vraiment par respect mm-hmm. mënuma ci wax tellement parce que waxoon naa la ni fi mu ne nii tafaatin moo fi nekk yi ma ci jot a brosé noonu dama ko wax rek pour ñu xam lan moo tax combat Balla Gaye am yaa ngi dégg mais ñun actuellement li nga xam ne moo fi nekk mooy tafaatin gis nga au soir ñu bëre ak tafaatin ba pare boo ñëwee fii loo bëgg mën nañ ko waxtaan ci Balla Gaye pour leeral leen rek Euh, jotoon na ma wax sax bëgguma wax ci komba Boy Niang ak Balla Gaye ndax komba boobu ñëwagul Tapha Tine ak Boy Niang ma fi nekk mais su ma ñëwee ba dem ta laaj ma ko ci dinañ ma laaj lan moo tax leeraloo foofu loolu moo tax ma boros ko ko moom tamit mu leer leen leen ko noonu gannaaw Tapha Tine fi nekk komba bu nekk ak la cee ñu wax ci Tapha Tine Tapha nag ngeen na bëgg moom suñ fa jugee nag ñu ñëw ci yenn question yu ndaw yi ñu doo ko tëj nag ngeen jëflante ak Tapha Tine ah bon xam naa nag jël nañu décision bu baax nag pour pour euh, préparer combat boobu et puis xam nga c'est par un entraînement intensif que le meilleur gagne te xam nañ ko. kon il faut ben ñu sérieux ci il faut hygiène de vie ñu am ko il faut ñu am moral bu baax yooyu yëpp nag dafa am yu muy laaj parce que combat Boy Niang par échéance lañ koy def engagé wu nañu pour def benn. Euh, ñaar léegi mu des ñetteel bi ñu ngi xool fan lañ koy defee. mais dama gis boo Niang dafa oyof ci combat bi te par rapport ak ni mu diisee mais dañuy bu bu ma mënee bu ma ñemee wax mën naa ne boo Niang léger la ci Tapha Tine la ci est-ce que loolu dina leen arranger. non Boy Niang du léger moom foo maigre la keroog bu muy bëri ji ak euh, Sa Kajoor ñëpp dañu jàpp ni Sa Kajoor këpp doole. et pourtant au finish ñëpp xam nañ ëpp ko doole. booy Niang tey jii ku gis am na jamono yoo xam dañ ma doon wax na jël ay protéines na jël nangam nangam ay anabolisant lu ne waxuñ may leen ñun daal muscle lañ soxla ci moom waaye tey boo xoolee démb ak tey nga xam ne Boy Niang lan la ko lan lañ ko ëppale. Hmm? wuñ ko daal. woon ak Lac de Guiers différence bi du sori. su taxawee ak Balla Gaye différence bi du sori bu taxawee ak tafaatin Tine différence bi du sori lan mooy problème bi problème bi mooy defaru ba bés ba bu jotee mu ñëw def prestation bu neex nit ñi mu ànd ak résultat positif muy gagné. pare ngeen pour xeex. <laughs> Euh, pare nañ pour xeex waaw. est xeex bi dina leen enregistré tafaatin loxo yi jot na. est-ce que <laughs> laaj ko ko déedéet tafaatin nag lay seetaan. waaw mais tafaatin mi ngi may seetaan mais man yow laay waxal. dama tafaatin moom kenn du ñëw ne tafaatin ay loxoom xanaa moo Balla Gaye te xaw na sax jóg mais. Sa Thiès waxoon nañu loolu est-ce que xool ngeen. xeex na mais du ngeen ko dumul mais tafaatin laa la wax est-ce que pare ngeen. avant ñuy dem ci combat ba li nit ñi doon wax. ak agent de presse yi. gaawaayam force de frappe am ak yu mel yooyu lañu doon wax mais kan moo gaañu. mais Tapha ak ak ak ak ak Ba ak Sa Thiès moom père yemuñu. Ah. yemuñu ci laa lañ yemul. Tapha Tine laa est-ce que yéen pare ngeen pour xeex ak Tapha Tine. ma ne est-ce que Tapha Tine dina xeex laa wax. Tapha dina xeex kay. combat bi dina xeex bu baax a baax. contre Yékini Junior rek xeexul. contre Ama Baldé xeexul. est-ce que loolu la nga yaakaar dina ko. xeex bi ngeen dox dafa dafa dafa yàgg. Bombardier la woon ak ay Elton. mais boobu ñaataat la ak léegi. xaw na yàgg de. voilà léegi nag bëri na fi ay combat yoo xam ne xeexul. waaw loolu ngeen basé wu. ci dara ñun suñu poulain la ñuy defar. yaa nga dégg mais yow yaa ma posé question est-ce que di ngeen xeex ma lay yow est-ce que Tapha Tine dina xeex. Tapha Tine moom dina xeex moom. yéen kay laaj est di ngeen taxaw xeex. mënoo ma wax dina xeex parce que nee naa la boo xeex bu mu doon xeex contre. Bombardier xeex ko contre Elton bëri na fi ay combat yoo xam ne xeexul. Ah, yéen daal ci loolu ngeen base da ngeen yaakaar Tapha Tine dafa sippi. dañu am sunu style am sunu stratégie dañu am sunu style ba pare am sunu stratégie boo xam ne bu soobee yàlla suñ ci defee li ñuy war a def ba pare jour boobu kenn du jëppi loolu mooy wax ji parce que tey xas jëm ca pays xas jóge faa ko gën di dugg ci benn dëkk naan tey ma toj dëkk bi. tey ma toj dëkk bi néeg bay waaw bay génn di wax ne toj naa dëkk bi moo gën a wóor kon booy ñaar du wax ne bu ma demee dinaa def lii mais li muy wax mooy dinaa préparer sama bopp defaru defar boo xam ne jour boobu dinaa leen loo xam ne ñëpp dinañ kontaan léegi nag ñuy ñaan nag mu am résultat bu positif mooy gagné combat ba parce que Bruce Lee dafa amoon habitude di wax l'art de vaincre quand on part de l'art de vaincre c'est gagner à toutes les manières hmm? gagné rek mooy résultat final bi te loolu la ñu bëgg ñëw di toog di tuutil tafaatin munul daraak nangam nangam mënul xeex su ma ko jàppee nangam yooyu yëpp ñun duñ ko wax c'est un très grand champion ku fi def ay jaloore la yaa nga dégg ku mën a bëri la comme ñëpp parce que bëri na parce que ay combat xam mën nga ci calculer juróom yoo xam ne benn bu ne nuruwul ak sa morom mu daane adversaire am kon toog di wax ni tey mënul bëre wala xamul dara kooku wax bu yàqu la man duma ko wax booy ñaar du ko wax ñi nekk ci safu Boy Niang duñ ko wax xanaa xëy na peut-être ñoo xam ni dañoo sori ñun li ñu wax a mooy xam valeur combat bi ñuy bëre jël l'arsenal qu'il faut pour gagner cette guerre loolu mooy suñu problème gis ngeen ñoom loolu mooy seen choix su ma jógee ci loolu damay ñëw ci Balla Gaye Balla Gaye jamono jii ñu toll nii li mu def ci làmb néew na ñu gis mbër yu tolloog moom génération def ko ci làmb parce que benn mbër nga boole quatre combats cinq combats ñoo xamante ni say naataangoo lañ ku ci nekk nga lekk avance am pare pour bëre ak ñoom ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax ndax moo ngi fee ci Europe di préparé naka nga gisee jëf jooju mu jëf ci làmb moom kontaan si. di wane ni Balla c'est un vrai sportif ndax gëm sa bopp mënul weesu nga dem jël quatre combats am na ñoo xam ne tey dañ naan non damay bëre bi waaw damay waa damay damay damay combat bi ba mu jeex ma doog a jëli bee waaye nag loolu bu ñu waxee Balla Gaye nañu gërëm Aziz su dul woon Aziz loolu du am Aziz li mu bëgg pour Balla su ci pare ñëpp dañ xam lan mooy Balla ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu fan wu gudd ak wér ñu tal ko fekkee parce que xam naa ni moom fi mu ko bëgg yóbbu nekkatul ay affaire ay carrière wala ay palmarès mais fexe ba mu nekk un citoyen d'honneur fexe ba mu am ay ressource fexe ba nga xam ni day day ñëw sax di liggéeyloo ay nit kon kooku dootoo xoolati ay maa daan diw nangam nangam réussir naa sama vie ba ko tey jii kër gi ma gis ci internet bi ak yeneen kër yi mu yor ak ay terrain yu moom su ko boolee am xaalis boo xam ne mën na ko exploité yaakaar naa ne moom moom ak njabootam yëpp képp ku bokk ci famille Sakho di nga stable ndax yàlla alal jooju mën na ko mën na ko régler Aziz foofu lay xool mais xoolu tey jii ay Balla mu daan diw ak moo diw ko daanak yooyu passé nañ ko parce que roi des arènes amul titre bu ko ëpp. mais père loolu est-ce que du metti ci ci ci ci Balla Gaye 2 parce que tey parce que tey parce que tey nga jël Bombardier Bombardier daanoon la nga jóge fa teg ci boo Niang nga xamante ni nii ay 3 ans 4 ans ci ginnaaw soo ko laajoon mu ne la ñi ma ñëpp bala Gaye nekk sumu bët. Ah. ñu ne déetewaay nga teg ci ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux nga xam te ne laa woon ngeen fi kenn daanul. te dégg naa moo ngi ci waaye teg Eumeu maa ngi foo ci bëy ne Modou Lo ngi waa ñëw. mais est-ce que teg na ci Eumeu waa mu nekk 4 avance ñu ne déedéet waaye maa ngi dégg Modou Lo mooy cinquième bi. mais est-ce que non wax ne. waaw su bëggee moom tamit combat yi mu kii ñu tëgg ko Ama Baldé su paree moom it ñu jox ko ay combat ndax Gris Bordeaux sax ñoom ñu ngi wax diggante ma Gris Bordeaux bon xam nga euh, loolu day wane ne làmb daal tànku kanam la amul tànku ginnaaw. wàllu mystique ci yaramam. non non ci wàllu entraînement ci wàllu daan gis. ñaata combat MMA MMA làmb ak MMA e du benn. MMA gën a dangereux. non moo gën a ci wàllu làmb parce que làmb kenn ku ne xam na ni saa yaa ngi sangu saa boo yaa ngi dem entraînement. bokkul ak foofu foofu da ngay entraîné rek. pare dem bëri da nga yaakaar ne moom day dem bëri ji ko noonu moom dina mystique mooy dina jàmb dina te te te mooy nombre de combats yi nga xam ne da koo signé yëpp te war koo bëri te mi ngi koy booleeg sunu làmb ji di ko bëri loolu nit ñi dañ ci war a kontaan gis nga yeneen promoteurs yi mënul def comme Gaston nañu dem seeti booy ñu promouvoir leen def ay claf comme ni ma ko daan defee xool xale yi nga xam ne ñii amuñu combat ñoom tam ñu fexe ñu ci génnee ay champion comme dama dama dama dama dama Gaston ñi muy tëgg ñii ñëpp moom moo leen moo leen def champion mais dama dégg ci ñenn ñi ñu ne Gaston li muy def c'est bien boo baax na xalabuñu ko mais su ko wàññi woon am na boo yoo xam te ne gëj nañoo bëri mat na trois ans ñi mat na quatre ans su ma ko jëlee ci benn exemple mooy ku ci mel ni Issa Pouye gëjoon na bëri yàgg na dugal na ko ci su ko defoon noonu est ce que lamb ji na gën a tijjeeku. moo gét xam nga lu mu def moom jëli ñoom tonnerre jëli ñoom Cobra yaa ngi dégg jëli ñoom euh, Lac Rose jëli euh, mobile ama yaa ngi dégg jël Baye Mandione jël Zarko mais nañ ñeneen ñi aussi def lu mel noonu xam nga man lu ma mënul nangu Ouzin mooy defloo ba pare di xarab kiy def. tey Yada Limamou dama ko gërëm ci xale yi mu promouvoir on ci euh, ci euh, weekend waaw xam nga loolu loolu dafa am solo hmm? jën séntu asamaan jarul buuxante Gaston am na lu mu def moo get am na lu mu def ñu koy sant nag au passage parce que moo get musuma koo teg bët mais li mu def mooy li fi Leewtoo defoon te benn journée la ko def ay yi ma la limal yëpp ay grand combat la mais ci benn journée la ko def nee naa li ya daal gis nga lu mu def waaw bu fekkee ni paam kenn ku seen dafa bay sa waar Pape du Fall am na lu mu def mais tey su doon man la bëgg naa moom tamit bu def benn claf seet ay xale yi am coow dajal leen mu nekk huit combat huit huit lutteurs hmm, mu nekk tournoi bu am solo tey ñoom fàllu njaay gis nga seen kilifa la tuddoon xaw ma nan lañ ko tuddee woon. ah waaw. Euh, alors loolu aussi ñuy wax ne ñu waaw ñu ngi xaaraat encore mu defaat lu mel noonu kenn ku ne na dugal sa sa sa loxo ci biir affaire bi. ñu ñëw ci Modou Lo Ama Baldé mu nekk combat boo xamante ni nañ fi dégg combat bu mag bu ne ndax dégg nañ fi Balla Gaye 2 Modou dégg nañ fi ni Balla Gaye dégg nañ fi Gris Bordeaux Eumeu mais Modou Lô Ama ñu nekk ay xale yoo xam te ni kii day waree Parcelles ki waree Pikine mais combat bi nekk combat bu mag mais seen premier face to face daanaka àggul. mu nekk combat boo xamante ni ñu bëri woon nañ ci bàyyi xel ndax bokk na ci li nga xamante ne dina am na fu mu yóbbuwaat làmb lan nga may wax ci combat boobu. bon combat boobu di gërëm Luc Nicolaï ak euh, Luc Nicolaï en ko yëpp. ci réussit bi am ci Modou Lo Ama Baldé taxawal ko ndax lu jafe woon na taxawal la Modou Lo am na jamono yoo xam ne soo ko waxee day wax ni na Ama Baldé jaar fi mu war a jaar alors kon bu ñu demee ba mu nangu ko sant la bu baax aussi di gërëm mossi euh, Luc Nicolaï waaye combat bu bu am solo combat bu senegal yi di xaar ak diaspora bi yëpp te jii gis nga combat boobu mën na mën na promoteur mën na gagné sax ci PPV parce que fépp fu sénégalais nekk di nga jënd paas pour seetaan ko. waaw nga nekk ci biir Sénégal fu sori wala nga nekk à l'étranger kon combat boobu liñ ciy xaar bari na nit ñi rek lañu war a raisonné waat xam ni su dul woon Modou Lo Ama Baldé du am li mu am. mais su dul woon Ama Baldé tamit Modou Lô du am lu mu am nañu yëf yi mën nañ ko def ci sportivité kenn ku si nekk faral ki nga faral te ñu may leen temps ñu mën a préparer seen combat def seen i face to face bëre ci ci yoon kenn bañ a gaañu kenn bañ a yàqal sa moroom euh, combat la boo xam ne nag dañ doon wax ne du am su demee ba am léegi ñun ci ñun la des léegi li ñun li ñu bëggoon yàlla defal nañu ko moo doon combat ba taxaw te combat bi taxaw na léegi man li may wax rek làmb man bu ma sañoon fans club du am supporter du am ay amateurs ñuy am ndax ku xool les jeunes amateurs <coughs> taxawaay bi ñu taxaw nga gis leen barki Demba Ndiaye arrêt euh, fële euh, drapeau chef de l' ak taxawaay bi ñu fa taxaw ak ni leen seen CNG recevoir nga gis leen démb arène nationale ci koor gi nga leen ñu doon togg ay ndogu hmm? nga gis leen ñu am euh, benn commission sociale boo xam ne am na ci seen biir ñu seen yaay feebar ñu dem jël ay xaalis yóbbu leen pour dimbali leen ci ay faju nga gis ay mbër yoo xam ne feebar nañu ñu jóge fi ñoom tamit dem defi ay ket utal leen ay moyen ba tey ji am na ci ñoo xam ne ñu ngi faju ñun loolu la ñu bëgg ci làmb ji mais man li may wax ni sécurité bi laay wax yow mi nekk alkaati taxaw ci bunt bi nit buy ñëwee si comportement bi mu yor ci solam war nga cee xam ku war a dugg ci làmb ji ak ku dugg ci làmb ku ñëw sol kilot sol suèdement soo ñëwee doo dugg dañ lay wax demal nga changer sa tenue ki sol jasneeram bëggul kuy tuuroo ndox ci wetam kon yow tam boo melee ni moom di nga am yoo xam ne di ko éviter tey kuy ñëw di dugg ay perruque ay grand boobu jigéen ay soutien ay slip doo dugg nga yooyu bokk na ci yokk violence mais kenn ku nekk bu fekkoon ne bi ngay laata dugg soo yoree briquet dañ koy nangu soo yoree cigarette dañ koy nangu ba pare nga yor benn tenue décent descente bi ba pare ñu bàyyi la ak kon kay rek rectifié wuñ la cigarette bi mun nga koo yor ba pare te doo yaa àqal kenn bu toog jotee nga dem ci toilette di dem toxi nangu naa sa briquet nangu naa sa cigarette ba pare bàyyi la nga sol grand mbubu ak ak périk am ñoo xam ne dañuy sol silip teg ko ci seen seen yére am ñoo xam ne nii la ñuy ñëwee yooyu dañ ñëw dimbale. ba loolu bañ amati te loolu service d'ordre bi lañ ci yaakaar ci kaw aussi képp koo xam ne gis nañ nañu parce que ñu ngi préparé def ay stagiaires foog naa ni commencé nañ def seen stage su loola amee stagiaires yi ñoom ñu defuñu dara mais lu ñu gis lu normal lu daal danañ la woo benn agent de sécurité waalkaat yi <coughs> ñu ñu ñu ñu la. mais combat bi. su ma ci ñëwee. lan moo ci avantage ki nga xamante ni mooy Ama Baldé parce que ñu ci bari ñoo ngi naan combat bi su déree du ko arrangé mais su gaawee mën na nekk avantage am lan moo ci avantage bu Ama Baldé. bon Ama Baldé avantage am comme loolu ñu wax rek parce que toog di bëri ay trente quarante minutes ak Modou loolu ku ne xam ne ni ay risque mën na cee nekk ay risque de blessure ak yu mel noonu parce que c'est un lutteur boo xam ni. bëgg na xeex te am na stratégie ci xeex Balla Gaye doon wax ne Modou loo gaaw gaaw gaaw mu door lay percule te bu mu ko waxee léegi changé wul da nga koy gis ci combat yu bëri Bombardier li muy garaaw garaaw graaw dafa dafa tëj bëtam ñoom Gris Bordeaux ñi ñëpp kenn ku si nekk loo gaaw gaaw gaaw mu blessé la Lac de Guiers la même chose alors kon euh, loolu ñu ci wax dëgg la Ama Baldé nag nekk na mbër moo xam moom du xaar kenn. waaw moom soo xoolee kon Papa Sow ñoom dañuy bëgg di benn bennal moom du leen ko xaar ay ñoom Zos dañuy bëgg di benn bennal moom du leen ci xaar waaw kon nag euh, nii ñu nga xalaat ni ama bon li li ko war actuellement mooy am condition physique bu mat. mais est-ce est-ce que est que ni mu doon def ak ñoom Papa Sow jaarale fa ñoom Zos est-ce que dina ko def Modou Lo est que la ci ñoom sos nekk na ci Modou mais xam nga xam nga euh, Ama tamit il faut ñu nangul ko ay qualité xam nga man mënu nangu koo xam ne dafay def ni ñuy gis nii ba pare ñu ko fay bàyyi di xool leneen ban combat Ama nga gis euh, bu yéemu xaar yëpp da ci am difficulté day dem ba fi nga xam ne falay soxla soxlaa mais fekk day jeex. combat moom nees combat moom guy gi yooyu ay combat la yoo xam ne su fekkoon ne PAM da koo teel a da koo teel a bëri mu jeex kon du yegg ci coono boobu waaw yi nga xam ne xaaru ci kenn nag yooyu bu ci nekk gis nga ko ba ay ñoom tafaati nag ñëpp sax mayu leen fu ñu yekkee seen nag hmm? kon euh, foofu la ñuy xalaat Modou Lo moom euh, ñëpp xam nañu il est athlète am na condition temps bu doon moom bëre bu yàgg la bëgg parce que ci biir bëre bu yàgg bi lu bari mën na ko cee def mën na la gaañ mën na mën na la toucher aussi euh, loolu moo tax moom du ci yàkkamti waaw yow mi ko bëgg a contrecarrer nag ah da ngay mel ni Balla Gaye rek du ma la may dara. waaw loolu waaw waaw loolu moom euh, xalaat nañ ne xëy na peut-être ku ko def mën nga ci am mën nga ci réussir. mais man tamit ñi ma gis ñuy benn bennal ak moom ñëpp finalement ñoom ñooy mujjee gis ngeen noonu lañ ko defee woon tey ñu seet si woon ki nga xamante ni mooy Père Bourkhane di manager ki nga xamante ni mooy Boy Niang 2 Père soo mën kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tàggatoo ba beneen yoon yàlla julli ci bàyyi laay ak Seydi ñaan yàlla nga xam ne mooy coronavirus jóge fi ñi nga xam ne ñoom ñoo accidenté muy les journalistes la yàlla xaare leen àjjana euh, di wax ni rek ñi nga xam ne ñoo fi toog tey jii mooy CNG bi yàlla jàppale leen parce que xalaat nañu ne il y a du cent neuf au CNG alors li des mooy appuyer leen comme ni ko Max Mbargane doon waxee ku ñu mën a fal tamit li ñu war mooy ñu jàppale la accompagner la ba mission bi nga am woyof ci yow choix bi ñu def ci Issa Ndiaye Abdou Aziz Gueye eh, Bira Sène ñoom Ndiame Ndiame Diop ak eh, ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau du CNG ak ñoom Lahat Ndiaye ñu ngi leen di ñaanal mission bi nekk mission boo xamante ni dañ koy réussir avec gloire eh, di wax ne rek combat yi ñu jëm si ñun école de Boy Niang ak xale yi nga xam ne yor naa leen ñoom Koli Faye ak euh, ñoom papier ki ñeeg xale yooyu yëpp ñoom douze ans ñun ñëpp yàlla dafa leen réussite euh, ci li nga xam ne ak ñoom ma euh, Mandione junior yàlla dafa leen réussite ci seen combat parce que ñun dañu leen di sago tey jii ñoom ñooy sunu roi des arènes kon lañ leen di ñaanal yàlla et yàlla may ñu aussi fekke fekkee te ñu ànd mu ànd ak wér ñu mën a assister ci combat yooyu ak euh, xel mu dal euh, ba mën a réussir sunu sunu mission sunu mission promouvoir les les jeunes ba pare nag te mu ànd ak aussi waaw di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi jàppale làmb rek waaw promoteur yi ndax su dul woon promoteur manager yi duñu liggéey mbër du duñu liggéey même le CNG sax du liggéey kon nag Mbaye Cissé om nañu ñaanal promoteur yi ñu am doole promoteur bu ñëw ñu ñaan bu mu génn te am ñeen ñu tegu sa ginnaaw mais ñaata promoteur ñoo dugg rek génn dawaat kon nag ñaanal leen mooy ñaanal suñu bopp di ñaanal aussi wasaare yàlla may leen déggoo ci seen biir yëkkati leen bopp ci kaw ba ngeen am seen télévision am seeni euh, journal ak lépp loo xam ne rek euh, bokk na ci audiovisuel ngeen kawe ci lool lool lool macha allah yàlla na yàlla mun na ko te mun na ko def yàlla na ko yàlla def. aleykum salaam ah, gis nga kii soxna si eh, sama xarit la kii moom yaayu Balla Gaye la yaayu Boy Niang la aussi gis nga ko ndey ji seex la aleykum salaam ah, kii ku baax la ci quartier bi la dëkk yàlla moo def mu tombe ci lii mais comme ni ma la ko waxee. xaadar la yaay la ci Boy Niang parce que daf ko ngir Cheikh Sadbou mais yaay la ci Balla parce que Double Less kóllëreem la mm-hmm. famille yëpp la xam moo tax nag nii mu ci tombé yàlla na yiw waaw mm-hmm. ah, yàlla na nekk que nitu diine la mm-hmm. ñoom mooy seen maam ah yàlla yàlla jàppale ñu jàppale mboolum jullit parce que lépp loo gis rek du hasard li waral ci lii xëy na dafa war nekk réussite comme ñaan gi mu tombeel ma koy ñaanal site bi yàlla dëgëral ko nekkal ko ba site bi nekk ci site yi gën a kawe yéen aussi ngeen am ay ay dayo yu kawe yoo xamante ni fu ngeen ñëw ñu xam ni ñii kat ñooy waa wasaare loolu am na solo lool yal na yàlla def ko. gis ngeen noonu la leen ko defaloon ci wasaare làmb ak ki nga xamante ni mooy Père de Euh, Père Bourkhane maa ngi juum Père Bourkhane waaye di leen wax di leen jox dig daje ba beneen yoon xanaa balaa maa kii sax buñ paree ñu bàyyi ko suñu yaay yi mu ñaanal ñu ñu doog a tàggatoo dem jërë ngeen jëf ba beneen Wassare Lamb jaajëf.